waaw dafa mel ni combat bi dafa mel ni combat bi du yàgg de ndaxte dafa leer ma koy cabaxal ah ndigal bari na bañ na combat bi du yomb ndaxte ñoom ñaar dañu xaw tolloo doole loo xam noo gisa lamb ji ni ndeysaan ñaari xale la bi noo ko ñaari xale yoo xamante ñoom tamit ay ndaanaan lañ ndigal jël na ko ndigal <laughs> jël na ko sànq mu bañ mais dafa leel dafa rasu dafa leer dafa mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni du yomb ci ki nga xam ni mooy ndigal ci adversaire am ki nga xam ni mooy Tapha Leer da koo ndengeñ loolu mag ñi naan ndengeñ da koo ndengeñ pour mu génn si nag ay coup koy may waaw du yomb ñoom ñaar ñu ngay dóorante ñu ngay dóorante Tapha Leer bu écrit Bada Dione moom moo jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy ndigal waaye dafa mel ni ko bi lee mu jeex daan na ko njaax lay nurool nag day na waar de nañ xaar arbitre yi ba xam lu muy wax nañ xaar ba xam bi nee na Tapha ki nga xam ni mooy ndigal bu écrit de lutte Doudou Bakassar mu nekk ko lan nga si jëlee. maa ngi sant bu baax a baax. wér dama contact boobu. dama contact ko contact ba jeex billahi wallahi wa taala dama am doole macha allah yàlla na rakkab doole daal. Eh, ci loolu lan ngay wax supporters yi. ñi aw ma seen fay yàlla naa leen di bàyyi billahi wallahi wa taala kontaan ci ñoom laa def mënuma wax. ginnaaw bi nga jógee si ndigal fan nga jëm. instant yi gars yi moo la ñoom liis njaago yi ñi di bani manilu Petit Lo bu Siteu bu ndaw ku ma ci am jël mooy loolu waaw.